alimtu am na xam-xam bu wér man sëriñ Tuubaa ne wa inni naka man ahmadu mubdiihu sunu boroom ma ngay feeñale ci man bil fuyoo daati ay baawaani mayam loolu moom lu ma wér la wér na ma tamit ne bi annal badiiha naka sunu boroom moom tey aji fent ja sunu borom moomu yar dahu moo ma yokkat lool moo yokkat loo moo tàyyel loo yéefar yema doon gàllankoor diggante géej ak jéeri ak dëxëra diirab jamono juróom-ñetti at yu manqué tuuti ñu dima jiima gàllankoor ngir duma mu liggéey rasulullahi sunu borom nag moo leen mujj def al ajda mu def leen ay njadde njadde mooy loo xam ne daa waroon a ami nopp waroon a am ab geen ñu dagg nopp ya dagg geen ba lépp kët noonee muy ñàkke xorom ba ko gis xam ne matadi na noonee la ma sunu borom defal yéefar ya mënatuñ maa gàllankoor ci liggéey gi ma liggéey rasulullahi ndax dalee na njaddeloo ba noppi mënatuñ maa lorati ci mboolem seen xeeti leru yi nga xam ne jëkk woon nañu ànd ak yéene ju rëy ngir lor ma waaye mënatuñ ko sunu borom nag moo may may yooyu alimtu ma boole ca xam yaqinan ànd ak wóolu ne an na sal arsi nag sunu borom moomu di borom aras aras ëppe na àddina ñeen fukki junni yoon diggante sama ak suuf noonu la aras ëppee diggante sama ak suuf te sunu borom a ko sàkk teg ko fa mu ko teg kon ki def loolu xaadirun ku am kàttan la àllaa kulli say in ci jëf mépp mbir mu ko soob te waxoo moom sunu borom moomu maaf saxu moom dong laa ragal waaye nag moom sunu borom moomu kat maaf saxu def nag ragal lii mu bàyyi ko ca xol yéefar yi jëm sa ci man saa su ma yéefaree gisee rek ak dëxëra diirab jamono dañuy tiit dañ may ragal ñoom yéefar ya wa isaa taxaf ilaahakal ahad yaxaf ka min xaw fikahu ku la ahad saa soo ragalee yàlla lépp lu yàlla bind te ragalul yàlla loolee dalay ragal loolu nag la sunu boroom doxale sama digganteeg yéefar yi sëriñ Tuubaa na ali ci moom sunu borom ittikaal yi la wakkilu saa tawasulin may boroom ak ommatu nag topp bin nabi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatullahi yàlla na dollee wàcc ca yonent boobee xéewali sunu borom nixma ndax baax na lool moom yonent bi al musaffahu koo ki nga xam ne mooy ku ñu ramuloo ko alayka yal na wàcc ci yow ma mawla tukkee ca sunu boroom taxalaa tey aju kowe ja salaamuhu xéewalam ya amin bi isbika yal na ko wàcce ci sa kuréel ba muy mbooloo ma la toppoon te gëm la yaa man yow njol yaay ki nga xam ne yasfahu yow la sunu boroom nara ramuloo fil xalaayiqi ci mboole mbindeef yi keroog bis penc ndeysaan mbaa ku ramo ci sa ndigal ak ci sa daraja la ko ko yàlla maye annaa i samay coono man sëriñ Tuuba maxawtawoo faral nga ma ko yow rasulillahi bi isnillahi anni ci ndigalal sunu boroom nga ma farale samay coono ci biir géej ak ci biir jéeri kama xaadal yi noonu it yow njël makka noonu nga omati indi fi man maa lépp loo xam ne kontu nekkoon naa arjoo di ko yaakaar indil nga ma ko wa at mahu mbaama di ko xemmeem indil nga ma ko man ahmadu alayka salaama man yel na wàcc ci yow yaari musalla bàyyi ko ci sunu borom muy musal ak addina ak goog ëllëxira sunu borom moom yi nga xam ne adaani mooma gindi wasaana nii te mooma ñoŋal bi kaw ni ci nekk gi nga nekk yow rasulillaahi xalxan di mbindeef mu mag waaye mbindeef nga moo xam ne yabrahu yaa raw jumlatal xurri mboolem sang sa sang sa mooy yonent ya ak gaa yu baax yi ñëpp yaa leen raw te ku ci am daraja ci sa daraja yow njol màkk la ko ko yàlla joxe day sànn uhidta safihan ci sa daraja la sunu boroom digee am ramu mun jiyan ci sa daraja la sunu borom digee kaaraange yow Muhammad saa i xaasatin kay boroom ngëlëm tiif day dikk ci sa daraja allahu la sunu boroom xaada ommate lii indi fi man sëriñ tuubaa allazi la nga xam ne yenn faw day jariñ ab jaam a dëxra diirab jamono wuloo mi samab xam-xam man sëriñ tuubaa wa irfaani ak samak ràññee man sëriñ tuubaa xaadaha ommat na allahu sunu borom mi aji màgg ji nguur bi ci sa daraja yow njol makk indil ma ko ndeysaan loolu lépp sunu borom ci sa daraja yow rasulaay la ko ommate illa ya indi ko fi man sëriñ Tuuba fa anta yow njol makk al muntaqa yow yaay ku set ku ñu tànn ka wa sa may sahu te yow yaay ku ñu xeeñtu ka te ku la xeeñcu ba am ngërëm lu bàyyi ko ci sa jëmm jooju yow njol mag kookee dina am ngërëmal yàlla dina bokk ci waa ajjana yàlla nañ ci yàlla boole ndeysaan aleya war na sama jëmm ji man sëriñ Tuubaa li wàcci leehi ngir jëmm yàlla may aji màgg ji nguur la jalaluhu màgg na màggam nga moom sunu boroom war na ma bàyyi ko ci man làkk jëm si ci yow njol mag a dëxër diirab jamono am daawun aw tagg ndax masaayaaka sëy ngëneel yow njol màkka tarfaxu dañoo yëkkatiku lool ba lu ca waay tagg-tagg faaw mu des wuyoo biya samay ayib jàmmat bari woon nañu lool xablu cëg-jëg laakin waaye maxaw taxaa ci sa barke sunu borom faral na ma lépp wa kuntu nekkoon naa a taddaru di boroom ak toroxlu bi maahin ca ginnaaw yonent bi kay aji farja ak kéefër lil ali ngir sunu boroom may aji kowe nekkoon naa rek di toroxlu di topp yonent bi di jëf la mu digle di bàyyi la mu tere ci dara jaam la ma yàlla maye mboolem saa yi man sëriñ Tuuba moo tax afawtu jéggal naa muy bale naa annil ahdaa jëmale ca mboolem noon ya turan mboole seen kenn desul ñépp la jéggal li wàcce man ngir jëmmi sunu boroom mi nga xam ne nafaahum moo ma leen dàqal li xayri yi ñu jëm feneen fudut fi man sarmadan ba faw lastu àdd fahu du caageen man maa leen dàqal sama bopp ñoom noonu ya sunu boroom moo ma leen daqal ci darajaay njol makka sallallahu alayhi wa sallama alimtu xam naa yaqiinan ànd ak wóolu ne anna mawlaaya naka sama boroom kaana lii ku ma nekkal la ndeysaan ku ma dimbali la wa annal muxafaa naka ku ñu xeeñtu ko di muhammad alayhi salaatu man mooy jëmm janga nga xam ne yardahu moo njaddeeloo moo loo doole xalaani ya samay noon ya ma doon jéem a gàllankoor ngir ma liggéey rasulillahi sallallahu alayhi wa yaa ngi jàng téereb sëriñ Tuuba bi ñuy wooye muqaddamatul amda yaa ngi ci page 38 wasalaamualeykum